ci ñu war a sanctionné la mm. te retiré teel nangu dafay yombali du moom teel naa moom sax teelul nangu mënoon naa teel a ba dem jëli ji fii moom nee na El Habib Tunkara Rose Wardini Cheikh Tidiane Gaaj Ahmed Ben Omar Sy Diop Pape Makodou Diouf ajourné nañ jaa xam naa dañoo dañ ajourné <laughs> sont déclarés ajournés ñoom ñoom pare nañ bee boo ñu ku ñu la si ku ñu langaa bi nañu wut ku leen kalandoo Mary Teuw Niane ay professeur Mary Teuw Niane tamit titulaire de chaire <laughs> professeur Mary Teuw Niane Abdoulaye Sylla borom Ecotran waaw mi ci influenceur na xam naa si xam nga gars yi dañoo mën a ñëw da ñëw signal diw signal diw signal diw. boo ko defee dañ la war a jàpp mais kenn appliqué wu. mais loolu moo indi doublon yu bëri yi nag. Samba Ndiaye Aminata Assome Diatta Assome ñii ñëpp invalidé. invalidé. donc nag boo ko boo ko tënkee 15 jours la ñu leen nekkoon gi ci saytu parrainage yi jamono joojee bugaan ngay daal yi def na. moom moom dañ ko Assome Assome bu Kër Massar. xëy na yéen a ngi nii nag tamit yëg na ci kaw tribune bi. nee la. def na jàngat jëmale ci discours yi njiitu réew mi ay joyanti ak jubbanti moom dafa topp Macky Sall rek. rek sàkkum tiit mu ko waxee tibb tànk. doxal ba noonu la def. le président Macky Sall moom njiital gëm sa bopp nee na Macky fee a fait son bilan discutable ndax ma ne sa ni si def ab jàngat hmm. moom président Macky Sall la mu wax nii ma ne si ko waxtaan il oublie qu'on lui a donné cinquante mille milliards il nous une dette de plus de mille milliards et lan un chômage qui est passé de douze à vingt trois pour cent <laughs> nee na ko loo tagg tagg sa bopp dama lay fàttali ne saabu du fóot hmm. <laughs> parce que nag yow boo fi toogee fëgg sa dënd ne man maa fi def lii nga jox cinquante mille milliards yoo xam ne pour nga defee ko nga bàyyi ñu fi bor bu nga xam ne ni toll na ci quatorze ba ngay wax nag mënoon ngaa wax ne bor bii maa ko fi ba bu ko anay wax ne du man tey nee na nga bàyyi fi tamit bu xëy gu metti nga yokk jamonoy Abdou Gueye gi yeewu treize laal ndékki doo añ topp ci taa tootu euh, topp ci ci koñ di di wàññi patalampe yi chômage bu bari nga fi bàyyi jële ko ci douze ba vingt trois pour cent Bougane Moussa Macky nu parle de ça lan reconversion nee na ka ah, xakay bu la neexee nag yow Bougane Bougane su ma faloo nekk président de la république toog ci pale bi maa lay njëkk jox marché bi njëkk bi si sa ngir nag nga jubale sénégalais yi yow nga jubale sa bopp ak sénégalais yi mm-hmm. euh, réconcilier les sénégalais il nous parle de la présidentielle akay la si présidentielle waaye amul dara lu nga xam ne wax nga ka loo xam ne man naa dalal suñu xel ñooyu nga xam ne ñëpp nañ bokk inclusive comme ñoom opposition bi dañ euh, euh, sàkku mm-hmm. maanaam élection ñu bàyyi ñëpp bokk bu kaa nekk loolu donc jamono joojee ci tribune yéen kaay laay desandi ba tey ak ki nga xam ne mooy Amadou. xam nga des médias waneeti na boppam ci euh, fin d'année bi bébé de l'année def nañu ko moom Amadou Diagne Fodaka daal di rendre hommage Momy Bousso Seck Momy Dani euh, Guèye euh, sunu njiit la woon mu doon lu nga xam ba léegi xam naa 2023 li ñu gën a métti moom su la bokk mm. demam gi waaye nag amuñu droit sax mi ko yàlla bu ne waaw ku ne déet da ngay sa bopp mm-hmm. yàlla moo ñu ko joxoon moo ko jëlaat yeesal ak euh, njéggal ak yërmande ca moom euh, suuf oyof ci kawam fa mu ne gënal euh, fi mu jógee jamono joojee ba tey ki nga xam ne moom mooy njiitu réew mi président Macky Sall si la solo yeneen message tàggatoom gi amal na ko ki rek maanaam décembre bi ci bilan la def ak la nga xam ne moom la fi bàyyi ngir nag ki war a ñëw orkee mën a liggéey moom tribune yéen a le soleil yéen a kaay daal ciy dikk le mandat nee na ko wax nga ba nopp yow président Macky Sall discours de nouvel an Macky tire le bilan de ses douze ans et fait voilà au peuple sénégalais tàggatoo na xamal na leen ne kon bi mooy sama adresse bu mujj à la nation hmm. jamono jooje bay mooy su bu mujj nag waaye xamal ne kon moom boo bëggee liggéey sa fondation bi nga xam ne taxawal nga ko man maa lay jox marché bu njëkk ndax man maay toog ci bopp le février 2024 moom Bougane Gueye Dany en xam le na ko ci euh, Euh, la euh, yéene kaay élection présidentielle ba tey le mandat des éliminations programmées pour favoriser la candidature d'Amadou Ba point d'interrogation mooy lañ doon wax sànq rek asma mm. nee na segg gi nga xam ne mu nekk ni dafa am ay candidats yoo xam ne soo moytuwul mm. dañu leen di éliminer l'évidence yéene kaay ne Bougane de bëggul bokk si ñu ñuy éliminer ndax nee na président Macky Sall li nga fi wax yëpp mojj waaye nag mu ngi fi bàyyi sakkan na lool na quatorze mille milliard ci ab ni daanaka bàyyi nga fi ñun lii rek rek rek rek nga ñu fi bàyyi ni dono tonton Mbiré. tonton Maba dafa bëgg tonton ba dafa bëgg critique yéene ma critiqué wala bugaan mooy critiqué euh, ci euh, discours euh, mooy mooy critiqué. jour pour notre pays. nee na moom wax fa dëgg neex yàlla xolam bi boo ko ubbee. Sénégal a ci dee. kon est-ce que kii bàyyi na nguur gi. Sénégalais un jour Sénégalais pour toujours. nee na si nguur même même bu ma bàyyee nguur gi Sénégal moo nekk sama xol. bugaan nekk ah kay Sénégal moo nekk si sa si sa si sa si sa xol bi waaye na sa soxla ñu nga defal ñooy bilan sax mais xoolal rek ndax yow sa gouvernement bi nekk na à la hauteur performance moom ndax ma nga ca ndax nekk na woon à la hauteur ci attente Sénégalais yi li ñu doon xaar ci moom. 12 ans nga fi toog di ko ko fàttali jamono joojee Karim Meïssa Wade ne dikk na ko doon laajte a ah, ah, faali ngoyee ngi aatuma réeroon feeñ na feeñ na si façon maa fekk la kii nga xam ne moom moo di Karim Meïssa Wade ne nag kenn du ma ko nettali élection présidentielle yi février 2024 gii ci nekk seetaankat de kenn du ma clando ah. def na discours am bu nga xam ne nii man man ba ma gisee vidéo dafa mel ni président buy wax Karim Meïssa Wade tëllam gi am na tël et comme son père. vous en lui son. njaag bu daw ma dama foogoon après boo waxee français pe day xoolof. mais nee na déwéniti. doo ma bàyyi. ah xanaa yow loolu. koo ko wax mu wax ko tubaab yi dañuy wax déwéniti. Euh, ah il parle sur le plan international bëggoon. Karim Meïssa Wade def na bilangam. pré international soxlawul poste ONU de. déedéet. si euh, organisation yi nga nii de Sénégal la soxla. danger moom. lii mu def juróom-ñeenti at. Hmm. ci kaso la ne. ndeysaan. day man pour man ci kaso la ne. Hmm. parce que nit boo demee bay wax ne. waa ji dafa ne naa limité téléphone. naay limité samay message li ma commencé di communiquer dafa bari. ba tënkoon. loolu yëpp wax na ko de. moo tax ma sàmm laaj ne ndax tënkoon. dégg loolu. waaw waaw mais kooku kan la dépendre tegee tànkam ci réew mi. Mm. conseil constitutionnel moo ni moom mii day bokk. ba pare ñoom di jël cent trente huit milliards teg ko ci ndoddam. ba léegi nii gars yi ñu ngi wax ne. ñu ngi koy agité ba léegi. wala ñu contrainte de par corps. aywa. alkalima bu ndaw ci boppam. Mm-hmm. ci bés bi la juridique Karim Wade daan nag door campagne am ci façon bu nga xam ne ñëpp gis nañ ko benn vidéo bu nga xam ne daan na koy wane moom ci vocal moom WhatsApp rek la doon cinq département yu ànd ak moom donc amatul fii congrès sans débat jeex na programme moom Karim Meïssa ba noppi nee leen candidat bi boole candidat bi nga xam ne jubboo candidat bi doxal man la moom Karim Meïssa Wade njàggu ndaw bi moom moo ko wax ci euh, bi l'info yéenekaay daal di dikk ba tey ci démarrage bu contrôle parrainage ni meeku ca conseil constitutionnel Boubacar Camara passe d'office ci li nga xam ne moom mooy seetu gi Fall borom matale naa samay parrainage ba noppi des bàyyi naa ko wax sa des ndekete paase na